Ah, yonent bi ni ko ban aaya la wax ñu ko ñu mën cee jariñu ñun ñëpp parce que li la jooyloo lu màgg la xamoo ni alquran bari ku koy tari yenn saa yi nga gis su day si nekk ca màkka di def naafilaam yooyu muy def ci koor gi yegg si ci benn aaya alquran di jooy lakka jooyloo mooy dafa xam li aaya bi di wax zeynul abidin sët la ci seyduna muhammad yonent bi daf ko fekk ci kaaba gi mu toog di jàng alquran di jooy jooy yu métti yonent bi laaj ko ni ko zeynu looy jooy mu ne ko aaya alquran bii ma jàng mooma ma jooyloo parce que xamewu ma ko woon nii yonent bi ne ko ban aaya la mu ne ko dama jàng ci kaamil bi yàlla naan fa ida nufixa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun allahu akbar lii moo ma jooyloo dama jàng ci alquraan yàlla wax ni bu bis pénc xasee taxaw xamatuma askan xamatuma juddu xawma sant li ma xam mooy jëf ju baax te man ma xam ni maay sëtu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndekete li yonent bi di doon sama maam lépp su ma jaamuwul yàlla man zëy na damay perte yowmal qiyaam te loolu yonent bi waxoon na ko seydatu sayyidatuna Fatima miy doomam yonent bi xëy na bis woo Fatima doomam ba mu ñëw mu ne ko Fatima kan mooy sa baay mu ne ko yow mu ne ko Fatima kan mooy gën gi mbindeef mu ne ko yow mu ne ko Fatima kan la yàlla wax ni maa waddaaka rabbuka wa maa qalaa wala al aaxiratu xayrun laka min al uulaa mu ne ko yow mu ne ko kan la yàlla ni innaa fataxnaa laka fatxan mubiinaa mu ne ko yow mu ne ko kan la yàlla wax ni li mu bind lépp moo ko ci gënal mu ne ko yow mu ne ko mbaa xam nga ni li may sa bàyyi lépp yowmal qiyaam boo jaamuwul yàlla yow Fatima safara nga jëm yonent bi moo ko wax Fatimatu bintu Rasul doomi boppam ni ko boo jaamuwul yàlla ba ñëw yowmal qiyaam safara nga jëm yàlla jël na yonent yóbbu àjjana jël taawam bu góor yóbbu safara yonent yàlla nuux dégg nga turam nuux taawam nu mu tudd kanaan kanaan fu mu jëm mais safara la jëm sama sëriñ moo may yóbbu aljana ëllëg yow mi koy wax xamal ni yàlla jël na yonent jël doomam yóbbu safara jël yonent bi yóbbu àjjana bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekke jël sëriñ teg ko palaasu yàlla ba jaamuwoo yàlla yowmal qiyaam sëriñ bi du xam foo féete lii mooy dëgg ku jaamuwul yàlla ëllëg yowmal qiyaam dangay ngay dekkiwaale bulletin niil